cabinet du ministère du Développement communautaire, Madame, Messieurs les conseillers, Madame, Messieurs les directeurs, Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs les agents du ministère du Développement communautaire, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde envers Allah le Tout-Puissant, dont la volonté m'a permis de servir mon pays à des tâches importantes. Cette volonté s'est manifestée à travers la confiance que son Excellence le Président de la Macky Sall a bien voulu placer en mon, en à diverses fonctions tout au long de son fructueux mandat. C'est l'occasion pour moi de lui exprimer ma reconnaissance sincère et de réaffirmer mon engagement et mon attachement à ces idéaux. Monsieur le Premier ministre Amadouba, qui a la responsabilité de poursuivre et de pérenniser l'action du président Macky Sall, je souhaite un plein succès pour les défis à venir et je lui offre mon soutien inébranlable. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, aujourd'hui, après trois années à la tête du ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale. Je m'appelle à passer le flambeau à Madame Thérèse Fayouf afin de rejoindre dès cet après-midi le département de l'agriculture. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations et mes encouragements à Madame Thérèse Fayouf Madame Thérèse Faye j'ose le et sans me tromper, votre nomination est la reconnaissance d'un parcours exemplaire auprès de son Excellence de la République et d'un engagement inébranlable en faveur de la réalisation de sa vision. Depuis la de ce ministère en avril d'importantes réalisations ont été accomplies apportant bien sûr une amélioration significative des conditions de vie de nos concitoyens, en particulier les plus vulnérables. Les projets menés par les entiers relevant du ministère ont permis de désenclaver de nombreuses localités, y compris les régions les plus reculées du pays. Le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, fait aujourd'hui de modèle en Afrique

totalisant 365,7 km de pistes, dont 213,2 km ont été achevés en 2023. Ainsi, la construction de cinq ouvrages de franchissement. Ces réalisations ont renforcé la mobilité et l'accès aux infrastructures sociales de base, désenclavant 367 localités. En

au bénéfice de 716 000 Sénégalais. De plus, 325 systèmes d'approvisionnement en eau potable ont été mis en service, permettant à plus de 615 Sénégalais de disposer d'eau potable dans La promotion des activités génératives de revenus pour notamment à travers le Xëyu le programme Xëyu Ndaw ñi exécuté piloté de main de maître par le Promovilles occupe une place privilégiée dans le bilan de ce département. Mesdames, Messieurs, chers amis, en ce qui concerne l'équité sociale, le programme national de bourse de sécurité familiale a permis de prendre en charge 300, 354 951 ménages bénéficiaires, y compris les détenteurs des cartes d'égalité des chances. En plus du programme national de bourse de sécurité familiale, les filets sociaux complètent un projet essentiel appelé Yoko Kongo, visant à autonomiser économiquement les ménages bénéficiaires de bourse de sécurité familiale

24 408 de cas de personnes âgées de plus de 60 ans, 13 831 femmes bénéficiant de la gratuité des ainsi que nécessitant une dialyse dans les établissements publics. Mesdames, Messieurs, chers invités, après l'institutionnalisation du registre national unique, Son processus d'extension à 1 million de ménages est en cours. Les perspectives donc pour l'équité sociale sont encourageantes, notamment avec le renforcement du partenariat autour du programme national de bourse de sécurité familiale NSF, avec d'autres programmes d'équité sociale et territoriale, et l'intégration en CEU, la carte d'égalité des chances et le PMBC. De plus, la poursuite des réformes majeures engagées dans le cadre de la CIV, œuvrer à améliorer le système de protection sociale en matière de santé. Cela inclut, entre autres projets de texte visant à créer l'Agence de la couverture sanitaire universelle, l'Office national de la mutualité sociale et le Fonds de garantie des mutuelles sociales. En ce qui concerne l'équité territoriale, les nouveaux financements obtenus auprès des partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien de développement et la Banque arabe de développement en Afrique, devraient à coup sûr permettre de lancer d'importants projets d'infrastructure visant bien sûr à désenclaver les régions, à électrifier les zones rurales, à fournir de l'eau, à améliorer de l'éducation, la santé, bref, à développer le Sénégal. Madame la ministre, chères sœurs, chers amis, voilà les enjeux auxquels le ministère est confronté. Je suis convaincu que vous réussirez, car vous êtes engagé, vous êtes expérimenté, vous êtes généreuse, mais vous avez la volonté. Surtout dans ce qui est de succès pour ce département, qui regorge des hommes et des femmes compétents, dévoués, que je remercie au passage, pour ne pas dire féliciter. Pour moi, vous féliciter, c'est trop tard, parce que les défis qui se dressent devant nous sont encore énormes. Mais néanmoins, je vous remercie tous par rapport à votre loyauté, à votre engagement, et surtout, surtout par rapport aux résultats importants que vous avez ak gërëm sama mag sama xarit monsieur le ministre de l'agriculture l'équipement rural et de la alimentaire Samba Diop Binta ku ma xam xam ne sama xarit la sama mag la du tey su ma ñëwee fii tey ñu ko wutu ci place sama xel dina dal te yaakaar naa ne que bu ma am benn jafe-jafe fu ma demee ba am lu ma xamul dinaa ko moo dinaa ko laaj seq nañ ko démb tey soobu may remercier également collaborateur am yëpp leen di féliciter ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañu ko parce que nag euh, yaakaar naa ne que suñu waxee développement communautaire wax solidarité nationale wax li nga xam moom mooy équité nationale équité sociale et territoriale dafa wax ne dafa mel ni euh, lépp luy file sociaux ak les marqueurs sociaux yi nga xam ne moo nekk ci politique gu président Macky Sall moom la daxañ dugal ko ci ministère bi kon ñi ci liggéey di ko jëmmal pour askan wi mën ci jëriñu ñooñu aussi dinañ leen gërëm sant leen li ci des nag bu ma ci guddal ginnaaw bu ma santee xarit yi ak mbokk yi ak ñëpp ñi fi ñëw monsieur le ministre damay wax ne que rek ñun dañuy inscrire ci continuité continuité mooy ministère bi bi ñu koy tàmbali foog naa c'était am fu mu ko jëlee am fu ko andi yow nga am foo ko jëlee am foo ko andi ñun fas dañu fas yéene topp yoon yooyu am fu ko jëlee am fu ko yóbbu ci njëriñu askan wi di gërëmaat président Macky Sall di gërëm aussi képp koo xam ne Sénégal yi nga nekk ci biir réew mi ñaanal ñu képp koo xam ne aussi yaa ngi fii ci biir salle bi aussi gërëm naa la sant naa la. li ci des nag mooy ñu jàpp ni que message bi ma bëgg a jox collaborateurs yi mooy ni ngeen ko daan defee ak mon frère Samba Diobé gën a ci loolu ndax li ngeen yoon yaakaar naa ni que dafa nekk loo xam ne day am impact direct ci population bi wax couverture maladie universelle xam ne ku wërul doo xalaat njàng doo xalaat leneen la santé de tout mondial donc li nga xam ne moom moo dem aussi ci wàllu ndox buuxaaw mooy li ñuy wax les besoins en tout cas sociaux de base nga xamante ne doomu aadama bu yeewoo te gisu ko dina am jaaxle donc loolu aussi ñu gën ci góorgóorlu dinaa nekk ci seen kanam dinaa nekk seen ginnaaw dinaa leen déglu waaye tamit dinaa ànd ak yéen ci projet yëpp mu wuti ndam wutal ko ki moom la fi yàlla teg muy le président Macky Sall naru ko liggéey aussi ci gouvernement monsieur le premier ministre Amadou Ba di gërëmaat ñëpp di sant